suuf si aussi dañoo yëkkati suuf jox donc man bu ma kii di wax naan liggéey eh, kii na ca fekk loxol borom. ndimbal na ca fekk loxol borom dama jàpp ne communauté bi yëpp suñ ci jàppee rek. lépp dina mën a dem parce que. te lii nii dina soulager ay bëri man nag li may li may remercier mooy l'association des parents de ñi nga xamante ne toogu rek ne yàcc moom dañoo jóg ñoom dem wuti ay partenaires ñun xëy na ay partenaires yu am solo. waaye ñun dañuy jël rek dem suñu comme ni ma jot a wax te ñoom ñëpp ci dëkk bi lañ def parce que fi jàpp naa ne fekkee da nga bëgg def lu baax soo ci woowee nit ñi daan la ci fekk si leen gërëm nañ leen waa appui à l' l'éducation wax dëgg ñu ngi def lu baax parce que ñun aussi bi ñu jógee dem ci ñoom wax dëgg yàlla ah yombalal nañu lépp bi ñu demee aw jóg sek bi ñu ko gisee mu expliqué ñu boobu ba léegi aussi mu ngi ciy liggéey di lancer partenariat bi ba lii jot ci am ñu ngi ñaan yàlla leneen ñëw lu ëpp lii ñëw waaye du tere ñu ngi leen di sant di leen gërëm ah di leen ñaanal tamit li ñuy liggéey yal na yokk ndax bu yokkoo ñëpp yëg ko li ñu jot a def ñun di gis nañ ci suñu bopp xale yi dinañ ci gis seen bopp ndax xale yi ñoo leen jaboote école bi suñu école la ñoom it li ñuy liggéey yal na jëm kanam li ñu séentu yal nañ ko ci gis wax dëgg ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi leen sant di leen gërëm wax dëgg yàlla merci donc wala da nga. waaw euh, maa ngi leen di sant di leen gërëm sant léegi maa koy tàmbale ci appui à l' parce que man bi ñu amee problème au niveau de l' école bi ma ko kii ne waxee sama xel appui à l' lañ la njëkk a xalaat ndaxte ñoom du tey rek lañ def lii boo demee ci école yu bëri am na lu ñu fa def jéeri faal gii bërki dem def nañ fa lu bëri donc man lii bëttu ci ñoom dama leen di ñaanal yàlla may leen kattan a ah, musal leen seytaane te wax deug yàlla yok xéwal yi du téré aussi wax deug yàlla may sant association des parents de bu bees parce que ñoom duñ toog guddi duñ toog bëccëg lépp luy développer école bi euh, ci li ñuy dox di jël seen crédit di ci woté di dox ci naaj bu tàng bi lépp di ko def rek pour élèves donc ñom amuñu seen fay yàlla na yàlla fay di sant aussi ñi nga xamné ñi euh Moussa mi ak Cheikh Ndiaye parce que ñi man ñuma xam lañu ñoo ñu liñ def vraiment dañ ñoo sass

ak ñetti salle de classe mooy salle de classe yi nga xam ne ñu ngi féetee ci tali Sénégal bi noonu voilà am na lu ñu ci jëloon defar ci aussi ay table banc pour euh, jàppale élèves yi ñu am fuñ ñu mën a toog école 2 mooy toilette bi nga xam ne moom lañu réceptionné ni boo demee si école maternelle bi école 3 du moins waaw boo demee fële euh, école maternelle bi def nañ fa ay toboggan ay banc ay tourniquet pour xale yi donc organiser nam tey ay journée de consultation gratuite ci daara yi mooy daara yi nekk Escale benn bi defe naa mooy bi nekkoon kër Pa Amat Amat Dem voilà def nañ tam ay don de matelas ci beneen daara bu nekk fii au niveau de Waxal Jàmm daara defe naa Gora Thiam je pense voilà donc daara Elhadj Gora Thiam donc mu nekk réalisation yoo xam ne bëggoon naa ko wax nii vraiment di demander aussi encore appui à la population de Bambey association ARD pour Bambey ñëpp la ku ne da ngay dem ci école boo demee ci école dugg ci toilette ku ne xam na ne toilette école mel ñan ñoo cay dem suñuy doom vraiment je lance un à tout le monde ku mën a indi sa participation muy don muy matériel ak lu mu munti doon ñu jéem a appuyer vraiment l'éducation de Bambey vraiment merci. waaw mbokk yi salaamaaleykum wa xam naa ñun liñ siy wax rek mooy sant yàlla bu baax a baax te itam dañu wax nii inna allaha la yughayyiru ma bi xaw qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla du fekk kenn fa mu dëkk wala fa mu moom mu di wala jamono mu di ko ko soppil lu dul ni moom moo jël volonté pour soppil ko bopp te itam école boo gis suñ ko dee tudd rek du école ba la wante ñu nekk si école ba la wala ñu dëkk école ba wala ñu ko moom la kon nag ñun ñëpp nañ góorgóorlu joxante ay loxo rek lu ñu fi mën a def ci lu baax ñu def ko ñun xëy na jàng fi waaye suñ kanam lañ ko lañ ko sosee benn bi ci nag sama doom yëpp fi la ñuy jàng ñoom ñëpp tabaarakallaahu te gisuma ci benn kii kon nag yàlla yàlla fay leen te yàlla jàppale ñu ba luñ fi bëgg rek ñu mën koo def suñu warugar rek lañ def ndax fi la ñu dëkk fi la ñu bokk kon suñu warugar rek lañu def ñu ñaan yàlla leneen lu mën ne amit ah lu ñu ca mën ñu def ko ba ñuy tele wala ñu toog loolu rek daal lañ kii. d'abord nga présenté wu. waaw man je m'appelle Alioune je m'appelle Alioune Seck. Bon, là, je représente euh, l'association Appui à l'éducation. donc lan nous que solo en français comme vous bon nous, nii li taxoon ñu l'association euh, parents d'élèves école 3 nous sollicité appui à l'association qui appuie l'éducation à Bombay, parce que nous avons avaient des problèmes de toilette parce que soo est fini, il y a presque 600 élèves et il y a que deux toilettes nous ñoo fi toilette donc tey jii nii ñu des leen à ay toilettes bon toilette qui nous nga ni la n'est-ce pas donc nous tey jii loolu moom moo suñu pour jébbal leen ko donc je vais en profiter pour pour pour féliciter et remercier euh, la communauté bon notamment ñi nga xamante ni jàppale nañu pour ñu mën a réaliser parce que l'association appui à l'éducation ñoom amuñu koom ñoom ci ay bonnes volontés rek la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy sukkandiku les bonnes volontés yi ñu sukkandiku pour mën a réaliser lii y a deux personnes yoo xamante ne ci école bi la ñu jànge kenn ki membre ba mbay la tudd kenn ki sunu cousin la mais il veut pas que que ñu citer son nom n'est-ce pas mais ñeneen ñi aussi fii lañ dëkk ci biir dëkk bi kenn ki en l'occurrence c'est le c'est le médecin euh, dentiste Ibrahima Diallo moom dugal na ci loxoom ak le pharmacien Ahmed Faye bu yore pharmacie Daaru Salaam moom bi nga xamante ne fosse bi waroon nañ ko defaraat waroon ko creuser kooku il a demandé à ce que la main de pénitentiaire moom mu jël ko en charge et aussi la communauté de damay de a remercier Moussa Sène ak euh, ak Cheikh Ndiaye des parents d'élèves yo xamante de nous ñëw ci sen sueur japp ci liggéey bi te demandé wuñu ko ñu fay leen looloo tax réalisation bi. ak commerçant yi commerçants yi leen jàppale. bon aussi amna ay comme c'est-à-dire que c'est toute la communauté ñoom ñoo ñu donc la communauté yi ñu jappalé aussi notamment les commerçants parce que les commerçants aussi bi ñu gisee ni ñun action yu ñu bëgg def action bu noble la m'as ci que Pape Faye Ndiaye yore quincaillerie yi moom am appui matériel pour xamante ni jox n'est-ce pas am kuni ku wax as gay tamit daf jaay sable fi, mais quand bi ñu ñëwee wax ko mu xam c'est une idée noble yoni nañu suuf donc lolo tax ni ñi réaliser donc ñu ngi lay remercier merci merci beaucoup grand dama am reportage dama la am da nga di sama grand rek. ya yow.